une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp ak mboolem jullit yi di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di tàmbalee nuyoo bi ci kilifa gi nga xam ne moo yilif kër sëriñ Abdou Dia muy sëriñ Maam Balla ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko te wéral ko ba naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yëpp naal nañ ko màggale ko di nuyu sëriñ Talla moom mi nga xam ne it moo toogee jataay soxna Fatima Dia Mbàkke mi nga xam ne euh, moom it jataay bi tey ab ëttam la ñu nekk noo ngi jël nuyoo bi di ko jaare ci loxoom di ko ziyaara bu baax euh, di nuyu Sëriñ Abo moomit it di ko ziyaare bu baax waaye njaboot gi noo ngi jël nuyoo bi jaare ko Sëriñ Saalixu Mbàkke mi nga xam ne moom lañu doxale woon sunu diggante te mu ñëwoon ca kër ga bis bii sëriñ Saliou Niang noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara euh, di jéggulu nag bu baax ni ko sëñ Saliou waxe dafay mel ni juróom benni waxtu lañ waxoon ne lañu war a tàmbali waxtaan wi am daje bu amoon ci Rawdu Rayaahiin ñoom it ñu waxoon seen heure ñeenti waxtu ba ma fa nekkee ba juróomi waxtu teg ñeent fukki minute ak juróom-ñaar woo naa Serigne Saliou na ko ndax yéena nga ca waxtu wa mu ne ma dañuy daje di xaar njaboot gi feek fanweeri minute danañ la woo ba mu yëkkatee téléphone woo ma it ca laa jóg tàggu sëñ Ahmadou Badawi génn ndake séen na ma ndax rendez-vous moom daa bokk ci li ma fonk ba ma génnee mu woowaat ma téléphone na ma wàññikul ndax Cheikh Abdou samat moom Serigne Chouaïbou daf ma fa yónni woon waaye ñoom it dañoo jëloon ab invitation jaare ko Cheikh Abdou Samad bu jëm si ci man ngir sama teewaay te sakk woon ay kaddu yu bàyyi ko ci noonu jëm ci mbooloo bi te kaddu yu mujj nag ndax dañuy yaatal téere yaag woo wax nit ñi la tax ñu daje ba noppi tax li xaar ñu door la caa jox kaddu li ci toppit mooy ñu bàyyi xel ne day ñaari kilifa yu nu seq ab taalibe bi nag bu nekkee ci diggante ñaari kilifa day metti ci moom waxtu wi am na ñeneen ñu mu doon seen waxtu waaye ginnaaw ay dongo lañ moom mën naa leen a noggutu a waaye ñii moom moo tax yàlla xam na ne sëñ Saliou jotaan naa ko na ko sëñ Ahmadou Badawee la bëgg a jot ndax dama ne ko déet dama séq ki kilifa jotal sëñ bi nag wax ko ne yaa ma téye far ñu woo ko jotuñu ko ma ne ko maa ngi nii di la woo waaye joge naa ci sëñ bi ndax dama ne ko woon am téléphone baa ngi nii waxal ma sëñ bi nag wax jotal sëñ Saliou na ko gànna mii ndigal ko téye donc jéggalu kon maa ngi dogal ngànt ñëpp tey tuub bu baax a baax ndax Euh, jataay bi te bàyyi nañ ko xel bu baax a baax di sant yàlla yit ci jataay bi nga xam ne dañu cee teew damay wax ne euh, lu nekk rek dafa am luñ koy listixaare gis nga ba ma demee bay génn téere bii ñu ma jox gis nga li liñ ko dakkantale moom liñ ko wax dàkkantale sillatu rahimi fi fikri Cheikh al Xadim wa xayaati yi kon yow xam nga loolu rek doy na sëkk bu fekkee nit ki dana listixaar dara ginnaaw dañuy waxtaane lu dundal ak bokk far ngay génn ñu jox la ko ne bii moom sëñ bee ko wax nii la demee kon day mel ni li ngeen di dundal yéen wane na ne bu ñu doon xool dara xam nañ ne lii mooy li war a loolu it nag ak bokk dundal gi waaye diggante ñaar ñii ko seqoon nag muy soxna Faati mi nga xam ne mooy taawu Cheikhul Khadim soxna ja waaye sëñ Abdou Dia muy Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne it moo nekkoon mbokkam mbokk ak moom lépp li tax waxtaan woowu ak waxtaane ko am solo mooy jamono ko laaj jamono moo laaj delloo si lu mel noonu waxtaane ko ndax ñu mën caa roy cay melo roy ci ci yéen a ngi bëgg a sëf lu bari na mën caa waxtaane lu bari ngir nit ñi mën koo yóbbaloo ndax ak bokk yàlla moo ko moo koy tànn ak bokk nit ki tànnalul boppam fa mi bokk nit mën naa tànnal boppam ab sëriñ nit mën naa tànnal boppam métier mën naa tànnal boppam tariixa ba muy bokk waaye nag li gën a am solo mooy ak bokk moom nit du ko tànnal boppam yàlla ko koy tànnal kon loolu bu njaboot gi dajee fàttali ngir nafaraat dëgg-dëgg ak mbokkoo waaye jël ca misaal nag ci soxna Faati Ja mu baax ma ak sëñ Abdou ji Doyoly dafay nekk bind boo xam ne ñëpp dañ koy mën a jariñoo dañuy wax ne doomu adama dañuy wax ne doomu aadama mënta ñàkk ab jaxasoo mënta ñàkk nekk it ak kenn ba tax borom bi subhaanahu wa bi mu sàkkee doomu aadama yi def leen a def ay xaaj def leen ay famille def leen ay peuple waaye mu tànn nag aw nit ku ne mu boole la am loo bokk ak kenn ca biir bokk googa nag dafa am lu koy dundal am lu koy suuxat ndax nit mën naa bokk ak moom nit maam nit mën naa bokk ak nit nangam waaye dañuy wax ne ab jaxasoo wala ak mbokkoo wala ab ànd wala ak nekk dafa am lu koy tënk lu koy téye te loola mu ngi toll ci kemtulaayi kàttanu relation ñiy ànd nu nu seenu jege ñaale demee wala nu seenu xamee tollu wala nu seen diggante tollu ya koy gunge nag mooy sàmm loola ba mu mën a dëgër moo am loo xam ne day nekk xassa am loo xam day nekk àmm nga xam ne tey lii bu dee jullit ñi ñëpp alxuraan danoo tënk ne innamal muminuuna ixwa kon day mel ni ñun ñëpp dañuy daal di tàbbi ci biir baatu mbokk ndax lañu ñu bokk kon am na loo xam ne it dafa beru mooy nit ki la mu bokk ak nit te mooy la gën a dugg loola nag mooy mbokkoo goo xam ne day nekk mbokkook deret waaye ak xaritoo di ca juddu ak ànd di ci juddu ak cofeel di ko yonent bi alayhi salaam waxoon ne lislaam dañ koo peeg ci tedd ngay jikko mu ne waaye tedd ngay jikko day mel ni fukk da koo tëj fukk yooye da caa boole ne yàlla da koy sedd da koy séddale ci képp kum namm ci yow ak texe nga xam ne jikko yooyu ki yàlla nammal texe ci moom dana ko ca sedd dara ba muy lim fukk yooya da caa boole nag ak mbokk te mooy jokk kook dundal ko loolu kon bokk na ci li nga xam ne melowoowu la li tax yonent bi alayhi salaatu wax ne suñu borom dafa jël ak bokk wékk ko ci peere arsh képp ku ko jokk yàlla jokk la ku ko dogit yàlla borom bi subhanahu wa taala dog la kon nañ war a mel ci ak dund yonent bi jàngale na ko salaahu salaam yonent bi alayhi salaam nee na mathalul axawayni mithla yadayni taxsilu ihdahuma uxra nee misaalum mbokk ak mbokk dañuy mel ni ñaari loxo bii day raxas bii xam nga benn loxo bii bu bëggee raxas bii koy raxas bii bu bëggee raxas bii koy raxas kon loolu li nga ciy déggee mooy mbokk mooy setal mbokkam mbokk mooy défendre mbokkam mbokk mooy dimbale mbokkam kon loolu yonent bi aleyhi wax rek buñ ci amoon doy na ci ne misaalum mbokk ak mbokk mu ngi mel ni ñaari loxo yi kon benn mënta dem ba ca des bu ca manqué dana feeñ ca aji kay jëfandiku na muy jëfandikoonte bu mu ca manqué kon ñaar yëpp mooy mbokk mënta mënta ñàkk yonent bi aleyhi salaam di ne mbokk na ngeen di muslu yàlla ci kuy ñaawal ak mbokk nga xam ne bu gisee aw yiw da koy nëbbu waaye bu gisee ab safaan di ko feeñal xam ne kon day mel ni it am na lu muy tegtale ci diggante nit ak jikko ju rafet am na lu muy tegtale ci diggante nit ak ànd bu mat te mag ñu baax ñi fi nekkoon di dund nga xam ne yalla kenn la joxoñ ñëpp mu yonente bi alayhi salatu wasalam wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kuy roy moom ngay roy lim andi it moom la yàlla wax ne da ngeen ko jàpp wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahakum anhu fantahu lépp lu yonente bi alayhi salatu andi wax ko suñu borom loolu la digle ne na ngeen ko jàpp waaye lu yonente bi tere it na ko bàyyi te ku ne xam na lan la yonente bi alayhi salatu wasalam jàngale ci ak bokk ci jàppante ci yërëmante waaye ci ñàkk umbante ci melokaan yu bari loola it ku xool Cheikhul Khadim xam na loolu la doon yeesalaat loolu doon dundal jëmmi soxna Faati Jam it ak sëñ Abdou ku xool seen diggante bu ñu bokkee léppit niñ ko doon dundalee ndax defe naa am na ñu bokk ak bokk ba noppi te tey ña nga ndax nag ñaari béjjén yi nga xam ne ñi ngi sax ci digg bopp bi ñoo bokk fenn fu nu sax waaye ñi ngi xàjjalikoo day mel ni saa yu laalee rek ab safaanaam kon mbokk dara taxul lay tax ñu wax ne mbokk mooy mbokk mbokkoo mbokk mbokkoo te loolu mooy doxin woowu amoon ci seen diggante ñoom ñaar lu tax nag ñoom ñu mën koo dundal na mel lu tax soxna Fat Ja mënoon a dundal mbokk googu waaye lu taxoon it sëñ Abdou ja Doyoly li mën koo dundal moo di kenn ku ci nekk xam na lan mooy dayob ak mbokk ak ban wàccuwaay la am ndax que fañ war a jaar ci ab yar war fa jaar ci xam-xam ba gindiku ràññeeku xam ko jaar nañu fa nga xam ne tey boo beroon soxna fat Faty di ko waxtaane rek loo joxe ci misaalum almaratu saaliha loo joxe ci jigéen ju baax ju sel loo joxe ci ab murid sadiq loo ci melo ci tënk rek bu fekkee ne mbubb la boo ñëwee na ngay fekk soxna fat jarangoo lool te lay firndee lool it mooy sëriñ bi kum doyloo ba ak njabootam buñ jàngee ba noppi mu joxaat leen digal ñadiw jigéen na dellu leen ci soxna fat ja mu tërbiyee leen jàngal leen ak murit kon mooy day def ci ñoom makaarimul axlaaq ndax diine makaarimul axlaaq mooy diine diine mooy makaarimul axlaaq diine mënta mat te jikko matul jikko mënta mat te diine matul yonent bi alayhi salaam bu ne innama bu'istu li utammima mahaasina al axlaaq yàlla daf maa yónni ma mot li jikko yu baax yi kon liñ ko yónnee mooy diine l'islam kon diine ju mat mooy jikko ju mat jikko ju mat mooy diine diine ju mat benn bu ca manqué rek du mën a mat am na ci ku ñuy mu mujahid bi muy leeral wa innaka la ala xuluqin azim dana ay ala na azim kon jikko ju rafet dëgg-dëgg mooy euh, mooy diine ju soxna faj Ja nag jikko jooju la lamboo woon moo tax sëriñ bi daan ko doyloo ba ku jàng ba noppi mu ne doxal dem soxna Fat Ja jàngal ak taalibe te it defe naa ak murit moom wala ak taalibe bu doon ab école la soxna Fat Ja ci université yi gën a rëy la bokk tey jii misaal ndiw mën naa adressé boppam man murit laa keneen it mën na laa bëgg na la yow murit nga waaye sëñ Tuubaa ne innaha muridatun sadiqa moom loolu soxna fat ja am na ko loolu soxna fat ja ko sëñ bee ko seereel boppam naar boobu na koon gis naa soxna Fatima mu ne ko kooku moom murit sadiq la loolu kon lu mel la soxna fat joo moom it nga xam ne jàngal nañu ak murit jàngal nu ab sëriñ kon jikko jooju ki ko xam mooy mën a dundal bu baax a baax ak bokk waaye it sëñ Abdou Dia bi nga xam ne moom moom ñoo bokk soxna Khadija bokk bokk lépp da ngay tàmbalee xool ca euh, sëriñ euh, Mbacke soxna mu baax ma nga xam ne tey jii moom meññi sëñ Abdou Dia mu baax mii nga xam ne damay wax ne sëñ Abdou ñaari cër laam tey jii bu fekkoon ne nekkul ci keppaaru sëriñ Touba ab cheikh bu mbooloo di topp la di ko liggéeyal di ko ziyaare ndax way juróom tàng na ca ngërëm yi sëriñ Touba ba am ko li ngay xame bokk googin mooy euh, way juróom woowu nga xam ne buñ lay misaal dañ lay wax ne ñii mën nga ne ñii sant Mbàkke moo ci jëkk a tudde ku tedd Cheikh Amadou Bamba doom loolu kon dundalu bokku la ak ak rafetal kon loolu càllal ak royaat la ku xool diggante Serigne Touba ak digganteem ak moom it mën nga caa gis ci soxna su sell si soxna Khadija war nga caa xam ak bokkoo waaye ak nawloo gu amoon ci digganteem ak Cheikhul Khadim loolu kon day mel ni ku am ab setantal te xool lan lan mooy seen relation ñoom mën ngaa xam melokaan wu mel noonu loolu sëñ bi tàggatal boppam. yar ko ba def ci moom tedd ngay jikko yooyu day mel ni mënta ñàkk a mel nii mu mel kon kenn ku ci nekk rek li tax nga mën a porter jëf yi nii ba tey bokk gi mën a jaar fii njaboot gi mën a toog njaboot suñu Abdou ja mën a toog njaboot soxna Faty ja toog ñu toog di nettali seen diggante seenu bokkoo ak nañ ko doon dundale kon rafet ga waaye yàquwut nag ndax bu yàqoon kenn du ko mën a mën a toogal jataay bi loolu la loolu la melakaan wala jëriñ loolu Serigne Moussa Ka wax ne Cheikh Abdou Khadir ja borom duyooli ñoo bokk ndey am na nay wataake booli ñoo bokk ndey kon dangay xam ne liñ njëkk a bokk mooy bokk wenn way jur loolu it li nga ciy gisee mooy soxna Xadija moom di soxna Jature nga xam ne moom la sëñ bi njëkk a dëkkoo loolu la muy misaal mooy donn gi sëñ Tuubaa donn yonent bi alayhi salaatu salaam la sëñ Bay Jaxati wax naan ko doxiin na ma yow sa doxiin jëfiin na ma yow sa jëfiin waxi na may yow sa waxin ngiram nga teg sa tànk ba mooy sëñ Tuubaa loo natt ci moom rek noonu la nuyoo yonente bi alayhi salaam ndax defe naa ku yonente bi jëkk a dëkkoo Sayyidatuna Xadija la tudd sëñ bi it ki mu jëkk a dëkkoo muy soxna Xadi muy soxna ja te it nag mënuñoo ñàkk a mel noonu ndax sëñ Tuubaa waxoon na ne gërëm naa ko soxna ja Ture lu tax mu gërëm ko jamono neex waaye sëñ Tuubaa nee na bu jamono masaa dëgër bu demee cay bokkam lu mu am bu dee dugub ya ci aju bu ñëwee du ko indi ci man sax day jaar ci sàq ma sotti ko fi te ku xam na ne jamono moom dëgëroon na sëñ ndax boo demee ci nub satu taarix yi da nga xam loolu ñetti dërëm ku koy bëgg di wër kajoor ak bawal bindub kaamil di ànd ak ma sam Cheikh Massamba Diop ak maam Thierno di ko wecciku buñ ñetti le danga ko yoon wi nag dafa naqaree waxtaane léegi waaye man moom da may wax moom danaa ko wax yàlla rek a di ko wax loolu dafa won day woneen cër yi nit ñi am ci sëñ Touba li ko may dañ ko jënd ba mu jar fi ne am na yu ñuy bañ a li loolu la muy yàq mu ndax li muy tegtale mooy bokki Serigne Touba yi dañoo baax dañoo bokkak ak Serigne maam Maram bokk ak moom maam balaay Sa bokk moom Serigne Mbacké moo doon sëli di jaabukati yàlla ñii di nafila téeméeri rakka saxoo woor duñ lekk moyal duñ moy yàlla doon ñu sell sëñ Touba ñëw yu yor mbirum yàlla ñu fàtte seenu judd jox ko seen bopp lii ko waxut fan jaar moom looy wax loolu kon looy wax waaye ñoom it sëñ bi fayee leen lii moo tax léegi-léegi nga dékku ne Serigne Touba defalut kenn lu mu defalut bokkam li bokkam yi ñoo ndax loo bëri bëri cër te doo mbàkki boo séenee mbàkki dindi sa mbaxal loolu doy na cër na sëkk ab kon defar na ñëpp kon soxna si moom laltaay la ndax sëñ bi nee na gërëm na ko mu ne nag sëñ Abdou Jam yii mook soxna fat fatja ñoo bokk ndey te moom mii nag am nay wata ak i booli kon wanee na ne borom teraanga la woon ndax jamono yami am oto moom oto rombutoon ci réew mi ñu néew nga daan tudd ah Cheikh Issa Dieng nag Cheikh Ibrahima Fall ñoom euh, maam Cheikh Anta Cheikh Sidil Muxtaar ñu néew ñooñu ñoo amoon oto ci réew mi ay signal yu Touré ñooñu ñoo amoon oto ci mag ñi ñu néew ko ci amoon. kon moom jamono ba jamonoy jafe yàlla joxoon na ko taraanga mooy kon amoon na ak i booli nag kon borom yi taraanga la borom yi xéewal na damaa xamul nag booli yooyu fi ne. sëñ Abo moom gis naa mu yor ay booli dama xamul. kon nag loolu tegtal la ci melokaan mu ne moom ci boppam euh, waaye da daa ziyaare soxna Faati Ja ngir xam ne Seex Bamba kon da daan siyaare léegi bokk nañ way juru jigéen taatanu na waaye teewul da daan ak cër bam am lépp féete góor it da daan ñëw siyaare si soxna sii ngir lan sëñ bi jox na ko ay daraja ku xam na ne soxna Faty Dia Serigne Touba joxoon na ko ay daraja moom moo ko njëkk a xam ñëpp ba tax saa yu saa jóg da daan siyaare si soxna su sell si moom euh, sëñ Abdou Dia waaye ban taxawaay la soxna Faati Dia amoon ci sëñ Abdou sëñ Abdou doomi soxna la feeñe na jamono fi ñu war a feeñe jàng na alxuraan wattu na mbooleem xam-xam mu xam ko géeju sëñ Tuubaa ci géej gi ñibbisi waaye soxna Faati ja faggulaat na sëñ Abdou Dia loo xam ne jar na kenn ku nekk xam ne mbokk mu baax moo ko mën a faggul mbokkam ba mu xamee ne naanuwaay bi benn la xam moom joxoon na ko ci rub di ko ziyaara di ko jox addiye waaye bi mu déggee bi ñëw ñëw ba dem gànnaar moo xam ne naanuwaay bi sëriñ Tuubaa la looy bëgg a am adduna ak alaaxira ci sëriñ Tuubaa nga koy amee bokk na ci ñi gën a xiirtal sëriñ Abdou Dia ngir mu dem gànnaar fekk fa si Amadou Bamba waaye ndax da koo wax rek demal fekk si Amadou Bamba waaye waajal bindalub kaamil waaye yóbbal ba mu doon yóbbu ku ko waaj ku ko defar soxna Fatou Dia moo ko tayal la mu doon yóbbu ci ab yóbbal waajalal ko ba noppi jox ko ndigalul yóbbul ab kaamil ndax sëñ Tuubaa moom loo tàllal loo ko teg ci ay téngam lu dul alquranul karim du ko laal léegi ndax ci yan jamono la ndax day mag booba ci as bu ndaw la bu néew la te gànnaar moom koo dégg ñu ne xëtt na ba dem mooy xaw naa de da ngay ban alquran am kattan ndax sëñ bi day jékki-jékki di santaane te mënoo boole jukki ak daw di liggéey da ngay daw di tari boole ko di sampaka sempi ak di bind ak di toog loolu kon melokaan waaye fi ngay xamee tawfiix joojin mooy kere bi mu ànd ak sëñ ba sëñ bi yëg maam Thierno yëg la ne sëñ Abdou mi ngi ñëw ak sëñ Afiya sëñ bi daa daal di teel a joxe ndigal ci moom nag déggee déggeel nag ne gannaar moom du da ngay jékki-jékki rek bëtt ñu ne diw jaar na fi dem gannaar dafa mel ni pont noiro bi am na daqaaru cheikh fa la maam Thierno resté faaw nga ñëw ñu laaj lay question teg lay condition ba mu remplir ñu bind sëñ bi ne ko diw ñëw mi ngi ñëw matal na mu ne na dikk léegi-léeg nit yëglu ñu ne ko na dellu béréb sàngam xaar fa nga bëgg a daw yee teggi mu ne ku ku teggi ki ma fi samp bu déggoon keneen feneen dem ci ndigal li mooy faaw nga jaar ci mu ñëw nag ne ci sëriñ Touba kon sëriñ bi tàggat ko tërbiyal ko boppam ba mu ciru boppam di bind alxuraan nga xam ne moom sëriñ Mor Soxna sëriñ Serigne Fadilou Cheikh Mamadou Moustapha loolu li nga ciy jëkk a yëg mooy Serigne Touba ni ni ni mu bëggee mbokk da ko ciy seetlu. ndax Cheikh Mamadou Fadal ak sëñ Abdou Dia daanan bokk ab lal sëñ Mor Soxna ak sëñ Modou Moustapha daanan bokk ab lal bokk yi war nañoo delloo yu mel nii di ko jàngal léegi yi ci xew xam ngeen ko loolu lu muy tegtale sëñ Touba it daana sant sëñ moor Soxna ak sëñ Abdou Dia Cheikh Mamadou Moustapha ak sëriñ Fadilou weer wu jot ñu bindub kamil loolu kon yitte la beruloon loon kii beruloon ci kii sëñ bi fonkoon na ko loolu mas na ma ca bu njëkk bi may ànd sëñ abo mi dem di yooli mas naa ciy gëstu gëstu xam mooy bi muy bindal sëñ bi te fi muy wéeru nga xam ne dem na ba ginnaaw gi ginnaaw gi dagg te ñoom ñii daanan yegg foo xam ne danañ sotti ab jànj ndox tëpp tëppal ko ngir am ci nga yu dëgër ngeen nga man koo jëfandikoo kon lañ doon fàkku lañ doon saggoon fañ ko waroon a faggoo demoon nañ di ko fa fàggu ji daa leen xëy suba di liggéey ba ngoon nga bu pepp la ñuy am wala korkorub cere Cheikh Abdou Karim Touré wax na leen bis na leen boo gisee ma di leen xiifloo di leen marloo damaa bëgg ngeen bokk ci ñay ràmmale yonente bi alayhi salaatu wasalaam te defe ne bokk ci a gëme defe moom sëñ bi xamoon na ne ku ñu xam fii waaye bu ëllëgee lim am ñëpp xëcc loolu li soxna Fatou Dia waxoon na ko xam na te dana ci leer kon loolu ñoom lu sëñ bi junj rek bis day ñëwaat nga déggaat lool mooy mooy garanti gi ñu am ci jëf yi mat yooyu kon loolu doon na wane taxawaay bi soxna Faati taxaw ci wetam ba mu dem gànnaar bindub kaamil yóbbal bi mu doon yóbbu soxna see ko waajalal boppam te ku ne xamoon na soxna Faati yi cëram bu rëy ak may yu yi nga xam ne moom la ko suñ borom jagleel loolu it kon dundal la ak bokk seen seen diggante doonoon na koo xam ne it moom sëñ Abdu mbooleem njabootu Serigne Touba gi daf leen a baaxoo woon a jox addiye waaye ni muy bokk bokk soxna si na muy joxe njabootu Serigne Touba gi addiye noonu lay daan joxe soxna Faty ji addiye nga xam ne ci lu mbokk gi li muy wér-wér waaye xoolewaat na ko ba tub Serigne Touba ndax murid saadix gi nekkoon ci ci Serigne Serigne Serigne Serigne Abdou loolu wane woon na melokaan woowu waaye ndax moom soxna si da koo taxaw te taxawu ko waaye déedéet nu ko sëñ ah, nu soxna Fatja taxawoo sëñ Abdou rek sëñ Abdou it taxawoo waat na noonu soxna Fatja loolu da ngay dégg ñu ne keroog bi sëñ Darou seen génnee adduna ba soxna si ab liggéeyam ma ngi ko eggalee Darou Salaam doyooli bu ko joxoonum nekk ci biir këram mu doy bu santoon taalibe yi ñuy liggéey di ko jox mu doy waaye da ko wutal këram dogal koy tooli boppam xoola wii melokaan xoola ji jëf ak ji jikko nga xam ne yemul ci dëkkoog moom foofa waaye da caa boole wutal koy tool yemu ca mu euh, wutal ko këru boppam ba noppi nag jox ndigal taalibe yoo xam ne ñoo koy bayal di ko liggéeyal kon loolu wone na ne moom it jëlaat na responsabilité yi taxawu soxna si ci melokaanu mat woowu euh, bokk na ci it melokaan yu mat yooyu nga xam ne waxtu wu nekk day am ñeewante gi doxoon seen diggante waaye bëggante gi doxoon seen diggante soppante gu rey gi nga xam ne ñoo doxoon seen diggante ak mbokk dafa am lu koy saxal Serigne Touba daf daan wax ne dafa mas a tomb fukki tomb ak juróom benn fiiri ko ci ñeent ñeent xaaj ko ñeenti xaaj muy yàlla mi la bind sa mbokkum jegeñaale sa mbokkum taalibe sa mbokkum dëkkaale Sëriñ Tuubaa ba muy wax dana yàlla mi la bind lu mu digal na ko def lum mu tere ko bàyyi lu mu dogal na la neex waaye sa mbokk nag sa mbokkum jegeñaale nga xam ne yéen a bokk deret bokk yéene bokk pexe bokk la ngeen am bokk yéene ju rafet moo tax soxna Fat Ja mën a conseil Sëriñ Abdou melokaan yooyu waaye bokk yéene ju rafet taxit mbir mën a am mu jël ko moom it lam seddu ci boppam mu seddu ko ci moom bokk pexe it bokk la ngeen amit wane na mënta weesu amub dëkk joxe ce kër joxe cay tool ngir bokk ki nga am kon yi sëñ Tuubaa digle ne mooy dundalu bokk loolu wane na ne soxna siit it taxawoot ko waaye mooy melokaan wu dundal na ko yonent bi alayhi salaam moo waxoon ne ittaqullah waslihu daata baynakum fi anna allaha tabaraka wa taala yuslihu bayna almuminina yowma alqiyama yonent bi alayhi salaam nee na na ngeen ragal yàlla waaye na ngeen yéwéen rafetal seen diggante ndax ëllëg yàlla day yeweenal diggante jullit ñi fi mbokk mën nga koy bañ di ko foñ di ko daw ëllëg yomal xiyaam ñu dajale leen loola gàcce lay doon bokk na ci melokaan woowu nga xam ne ni soxna si tege woon bët ci Sëñ Abdu ci ñeewant ak cofeel waaye teewul nam ko daan saytoo bi Sëñ Abdu nekkee Tuubaa gii nga xam ne ñibbi si ne ñëw na fii wéral di Sëñ Fallu ne na ñëw jege si ndax ah, sagar day jegeb sën mu ne fii soxna si fii la daan jóge dem di ko seeti waaye bu ñëwee mooy mooy taxawu ba mel ni way jur la ci moom du yem ci di ko taxaw waaye njaboot gi ci kër gi sax da leen daan sonal ci na ngeen ko toggal nangam taxawoo leen ko nangam defal leen ko nangam defal leen ko nangam ngir cofeelam ci Sëriñ Abdu waaye jàpp gi mu jàppoon euh, Sëriñ Abdu mu mu baax moom moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne képp ku bëggal boppam lim bëggal kam li nga bëggal sa bopp boo ko bëggalee sa mbokk yàlla gërëm la man habba lil aqi di yuhib li nafsihi radiya anhu rabbi kon nag ku bëgg am ngërëmul yàlla li nga bëggal sa bopp da koy bëggal sa mbokk bokk na ci ak mbokk li koy dundal mooy wóolante bokk ci li koy dundal mooy nawlante bokk na ci li koy dundal moom ay mbokk mooy li yonent bi alayhi salaam ne jullit bi mbokkam mooy jullit mbokkum jullitam mooy mbokkam dafay mel ni misaal boo koy misaal mu ne ab seetu kenn ku ne ab seetu la ci mbokkam yaa koy faral ay gàkk gàkkam waaye yaa koy saral ay tilim tilimam moo tax melokaan woowu melokaan wu rëy la woo xam ne dafay jàngale ni mag ñi doon dunde ci ak bokk di ko rafetal waaye bokk nag di diisoo bokk di diisoo loolu ak nos la te xoola soxna Fat Ja ni sëñ Tuuba ni sëñ Abdou Ja xamee cërub soxna Fat Ja ba jàppe ko ab sëriñ jàppe ko mbokk jàppe ko lépp di ko ziyaara di ko jox addiye teewul it soxna Faati noonu la xamee cëram ndax keroog bi mu génnee àdduna ñenn ci a ñëw fii di ko siyaare si di ko di ko ko jaal si lan la leen wax seen way jir bu baax woowu nekk ngeen ak moom ba jóge fi te xamoo leen ko waaye bu ëllëgee da ngeen ko xam li ko sëñ bi séddee ëllëg de ñëpp xaj nañ ci loolu kon mooy wax ji Sëriñ Tuubaa waxoon mu firndeel ko te bari waa na mbokk moo xam ne boo amee ciir du ko nu ko feeñal mooy li ma waxoon léegi yonent bi alayhi salaam ne bu gisee aw yiw nëbbu bu gisee ab safaan fesal kon mbokk googu ñu doon dund ñoom loola taxoon ñu am melokaanu mat yi ñu doon dox bokkoon na ci melokaan yooyu ñu doon dund bokk gin bokk pas-pas ndax ku xam soxna fat ja ni muy jàngaleeb sëriñ soxna Faty daana wax ne ab sëriñ ab seetu la ab seetu kenn du xees mu ñuulal la kenn du ñuulit mu xeesal bind la boo xam ne ku ko dégg rek da ngay moytu baat bi ñuy tuddee al inxtiraat xam nga doo xëyee suba taxaw ci seetu bi sa xar kanam ami xaaw waroon na seetu bi daal lëndëm yaa war a sël mujj boo eggee ci jamonoy critiquer ab sëriñ ak di ko wet weddi yëgal ne yàqoo ngi ñëw loolu la soxna Fati jàngal ne ab sëriñ ab seetu la soxna Fati jàngal na doo xees mu ñuulal la waaye doo ñuulit mu xeesal kon boo delloo ci ñetteelu tomb murid saadix mooy tarkul intilaat lay jàngal ne ak déngat warul waaye murid googu mu doon dund di ko doxit ku xool euh, sëñ Abdou xam ne mboolem béréb bu nit di jaar ba am ngërëmul Serigne Touba jaar na fa ba làmmoo ngërëmul Serigne Touba lu mat sëkk loolu kon mooy dundal euh, bokk googu ñu doon dundal ci seen biir ak melokaan waaye ñuy àndit nag ca jëmm yàlla tax sëñ Tuubaa nee na ida zahabta lillahi l ahad fa xibbuha al fawzu ma alhamdi abad saa yoo àndeek nit te yàlla képp tax benn intérêt lalu ko nee na seeni mujj moom mooy texe ak mucc ak sant yàlla te ñoom dañ daan ànd ngir yàlla benn benn benn intérêt dawul lal seen diggante ku ci mës a séen ne sa mbokk ngi ñëw dangay ngay ubbeeku ci yëg ne kii ñëw aw daggit la ci yow nga bëgg ko lool nawloo ko lool loolu fi ne moo dal soxna fat jam ci mboolem njabootu Serigne Touba gi mboolem ci fépp kenn ku nekk moo nekkoon seenub jigéen di leen bijji di bijjanti di leen taxaw di leen maanaam nday la woon joo xam ne ci ñem ñoom ñëpp daan nampase ngir yaatu melokaanam ak rëyu doxinam mu ne it mu ne bu fekkee axiru soxbati li xayrillah anniya arjaa ila ilahi ab ànd nag bu yàlla taxut mujjantal ga mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon tey jii bari waa na digg diggante boo xam ne ña mujj a ñëw ñoo koy collé di ko rafetal waaye bari nay rëq-rëq waaye diggante Serigne Abdou ja ak soxna Fatou ja diggante la boo xam ne da ngay wax ne ndax njaboot gi mën nañoo yegg ci dayob rafetal lu toll ni lañ ñoo rafetal ñoom kon loolu ak sant yàlla la ci melokaan wu mat bi nga xam ne doon nañ ko dund di ko doxal seen diggante sëriñ bi kooku nga xam ne nag seen doxin yooyu yëpp mooy li sëñ Tuubaa doon jàngale wala ta wala taxaasadu fi lazina yu'minuna taahadu wala tanazahu fa inna dunya taalibuha laysa yarumu yaa day mel ni bañante ak soxorante ak xëccoo mooy waral ak yàqulante moo tax Serigne Touba di ko tere moo tax nag ñoom seeni xol aw yiw rek lañ daan ëmbalante aw yiw rek lañ daan jàpp ci seen doxalinu biir ak ci seen doxalinu bitti noonu Serigne Abdou meloon it faggu cër bu rëy boobu ci digganteem ak Serigne Touba. ba sëñ Tuubaa may koy may yu dul jeex kenn ku nekk xam ko mooy waral ñoom ci seen bopp seen doxinu biir ak seen doxinu bitti lépp nekk lu mat Serigne Touba day wax ca xekmaam boobu téere boobu muy def ay tomb ngi ñi loon ko lii mam Serigne Sill men euh, bindoon ko dajale téere yooyu ñu doon wax Serigne Touba day wax ne al muflihun lahum basarun wa basira wal ghaafilun laysa lahum illa basarul ayn looloo tax boo déggee ñu nettali ne diw kat amoon na xar baax sàngam mu jaaxal la ginnaaw ay weer la nit mën a takk mu yokk ab gisam tekki ko na taraas di lambut takk ko di séen tam nekk matière léegi ndaka intérieur nit bu sellee digganteem ak boromam ndax mënta foqo hijaab yi ba mën a yegg fa mu jëm moo tax dañuy wax ne as-saalixuun lahum basarun wa basira wal gaafiluuna laysa lahum illa basarul ayn bu ñu waxee dara it nu muy mel mu ne kàllaamul aarifina yu nawwiru wa kàllaamul xaafilu yu xafilu kàllaamul aarifina yu arrifu billahi wa kàllaamul xaafilina yu yu xafilu an dikrillah loolu li ma ci jubloo wax rek mooy bu nit sañee egg bu njanaaw yi dee naaw mu dégg la muy wax loolu dangay xam ne toogu rek nekk benn promotion daa lu koy maye bare lu waaye am wetti ñàkk weteeti ñàkk sell jub di lekk lu xaraam di wax lu dul dëgg di jëw kañaan tayel ci jaamu yàlla bëgg am baatin mënta nekk cërub yàlla ay tappale du ko maye te defe naa mag ñi tey tey doo bu fekkee boo demee sëñ Daaru Asan Jaay da ngay dégg ñu ne sëñ Daaru daana dégg njanaaw yi li wax sëñ bi ko waxoon na ko boo saxee ci lii njàngale alxuraan ni ci danga nga dem ba lu njanaaw naaw di wax da ko xam sëñ Daaru Asan ñu ne am na bis muy jàpp jekki-jekki rek mel lu daanu dégg biñ ko bi mu jógee mu ne la ma sama sang ba waxoon ñëw na ndax ñaari picc yii dañoo tong ci garab gii menn morom mi ne nañ wuti fun fanaan menn mi ne ko buñ naree dem fen nañ dem ci garabu Daaru San ngi di jàngale alxuraan kon loolu li sëñ Tuubaa waxoon na waa siñ sëñ Abdou Jam yi nga xam ne moom it u baaxoon sabee sax mu xam li muy wax ndokk nag moom lim ñu dimbalee li ma na wax sëñ Saliou keroog bi mu waxee ma ne ko dimbale leen ñu ci maalumaat yi ndax lu ñuy wax mënuñu koo ñàkk a wax te léegi-léeg nga dégg ku ne nangam prof te ñoom mënuñoo andi preuve du lépp a mën a ñëw ci preuve bu fi ne am nañu bu boo loolu buñ ko defoon sax ñu ñëw ngir naqadu dara mu naqashe yoo xam ne dañuy jàkkaarloo des na la laaj laaj doo ko tontu ba dañuy tub boo koy waxee doo am sëñ bi gërëm mag ñi cër yu rëy yi doon déggee seen diggante seen borom moo leen mayoon loolu am bañ dégg li njanaaw yi di sab di wax mag ñi dañ daan dégg wax yi yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu fatx bi leen sëñ bi defaloon mooy liggéey bu sell bi ñu doon dox diggante ak mbaam cër yu réy seen diggante seen borom loolu yi tax fàgguteef yi ko sëñ bi fàggul nga xam ne ay xaas laam tey fi ne boo seetee Daaru Salaam Duyooli sanc gi ko sëñ bi sanc mooy ndigal lim joxe woon ma Maab mooy lam joxe woon Daarul Xadim mooy lam joxe woon Daarul Xidma kër sëñ euh, sëñ Modou Xari Pof di sëñ bi kon bi muy décentraliser mag ñi ku ne mu di la jox ndigal melokaan wowul nga xam ne ba mu sancee béréb ba boobu sëñ bi wax na ko ne béréb boobu bokk na ci béréb mi mu gisoon bi muy wër Touba kon da ngay xam ne sëñ abdu ku bari woon ab cër la ci Serigne Touba ku bari woon ak jagle la ci Serigne Touba loola it jagle gu rëy googu mas na ma ci màggalu déwéle gi mooy kim daan yónni mburu bu demee dagg bopp yi ñëw na ko tubaab yi la ñoo torox sonn lool moo tax léegi dañuy teg ay kees dagg boppi mbur yi di leen ko may nga xam sëñ bi da bég lool ndax jàpp tubaab bi xoolal mag ñi leen mel loolu lañ daa def maam Thierno ma bàyyi sëñ Saaxo da daan ay lu ni ay filifeer takkate ko ñëw nekk ci wetu borom dëru naan Allemagne ngay takk France yaa France ngay borom wax ndax tubaab yaa ngay jeex nga xam dañoo bañ nasaraan ngir nit ngir sëñ Tuubaa sëñ Abdou li tax ba xol bi sedd léegi torox gi tubaab bi torox ba yegg ci ñu leen may dagg boppi mburu loolu moo sedd xol loolu mooy yi ñu amoon maanaam dañoo bokk ay mbir moo tax fi ñu toll loo dégg ci menn mag mu def dara ci kër sëñ Touba rek wëral da ngaa dajeegul ak keneen waaye da fekk ñu bokk ndax bokk ñoo bokk benn branchement gis nga cër yi sëñ Touba séddale benn guula genn mbana la sëñ Touba ko séddale ñoo bokk benn caf nga lay xeeñ kër Cheikh Ibra Fall kër Cheikh Ibra Fati kër Cheikh Mandoumbe mooy xeeñ kër sëñ Abdou Jëdd yàlla tolloole wuri mbir nit ñi ñii dañoo njool man maa ngi nii mën na maa sol 1 mètre keneen sol 1 mètre 60 waaye mën naa laa dàq mbubb nag waaye mbubb mbubb képp la tubooy tubooy képp la maanaam sëñ Touba ñëpp ñoo tolloole li ma bëgg a wax mooy caf nga goomu seneen moo tax seeneen jëru ko te ku xeeb sa ndab nag foo sukk des na yëlëb sa loxo te bokk yi egg nañ ci jamono boo xam ne matériel lañ gëm ak sëriñ bu xew sëriñ bu bees bari na kuy topp ko fa ngay topp dara néew waaye adduna adduna lañ jiital wata bu rëy lañ jàppeb sëriñ situation lañ jàppeb sëriñ comportement lañ jàppeb sëriñ te bari na ñoo xam ne ginnaaw sa mbir dañ koo lim ëllëg lañ koy xam waaye mbokk yi koo xam ne yaa ngi dégg ñuy rosi gis ñuy taalaale xet gi di la fekk fi nga nekk nga dégg jigéen ñuy dëbb xam nga ne da looy yàkkamti ba ne fi tegg sa loxo dem sukki ci loo xam ne da nga naan lii ma lekk waruma ko lekk loolu mooy lan mooy kenn ku ne fa a sëñ Tuubaa teg fonkal ñëpp waaye na nga ca ràññu bu fekkoon ne sëñ Abdou tey amuloon cër bii mu am ci Serigne Touba demutoon gànnaar demutoon Ceyeen bokkutoon ca njaareem ja bokkutoon te soxna Fat ja di magam mu bokk moom sëñ Touba bokk ak moom bokk ak moom lépp mu jox ko boppam mu ànd ak moom doy na ci bàkkoo ndax soxna Fat Ja li sëñ Saliou yu mu wax léegi ñëw kenn ci Serigne Touba des ko ci ñee waaye ñëw kenn ci Serigne Touba kon moom bu dee yéemu ci cër bu mu am rafetal googu moo ko waral xoolal fii kër sëñ Abdou Diagne ne tey ci Touba rancé boobu ah man de dama dama xam mënuma ko dajaluma ko waaye xaw ma fi kër gu fi nekk gulu doomi sëñ Touba boo wëree tuur boobu ba dellusiwaat nga fekk kër sëñ Abdou nekk foofu waaye léegi taxoon sëñ Fallu na sagara day jege ab sën waaye ku gëm sëñ Tuubaa ngi noonu démb daf sëñ kii daf ma woon lettre boo xam ne dafa am lu ma ci jàpp tuuti mooy wax ji wax ne bëgguma dara lu mooy nekk ak yow sëriñ tubaat tey ak ëllëg loolu damaa bëgg nga sarax ma ko ngir jëmmi yàlla ak yonent bi du leneen nag laa xëy sëñ bi xoolal kii ni mel nag boo maxtaj tu ila kawni maaka fi lxaali wa fi lmaal wal tajal lii ala dalika sadaqatan lillahi wa li rasulillah xëy wa salaam gis nga lii bii demande ku ko dugal ci sëñ Touba mooy lii baat bi xew sëñ Touba fi nekk doyloo sëñ Touba lii la sëñ Abdou Dia jàngale te xoola fa mu tàmbalee bataaxal ba aw ma ku dul yow yaakaaru ku ma yow ku néew doole laa ku lomp laa koo xam ne dama amul fu ma tëdd mel ni ko amul loo lekk amuloo naan ne suuta rek yàlla boole maag ku laabiir ku yéwén ku baax kuy wamate waaye bëgguma dara lu may rek tey ak ëllëg ma nekk ak yow bokk yi lii la njariñul ñii ñuy dajale di waxtaanee xew njariñ li muy jariñ mooy nu xam ne ay delluwaay am na te bu ne cell rek ñu bàyyi gaa yu bees yi di wax ci yoon wi ku jog di sëriñ ku jog di woote tuuma yi dana yàgg bari gis nga lii ñu nuy teg dina nu tuumaal gëmunu yàlla amunu xam-xam ak dañuy bokkaale buñ delloo suñu mag ñii comme référence danañ gën a tàbbi ci kàmb gi man ñi rek lañ mën a delloo si teg amul benn solution lu dul mag ñi mag ñi xuus nañ ci mbannigum adduna ba jàll bakkan jëmu leen bànneex jëmu leen saytaane jëmu leen adduna jëmu leen serafot amuñu benn gàkk amuñu benn taas du seen diggante seen borom du ci bokk du ci nawle diine jëmu leen bokk gi jëmuleen leen lislaam jëmu ngir ñu mën a jàmmaarloog ñoom jamono ñii la ñuy dellu siwaat xam nga bàyyee sa bopp lépp sëñ bi amoo dara looy sàkk amul looy dara looy dégg waaye xoolal ba muy jeexal mu ne ko ko bind katabahul muridu daif Abdul Xaadir xoolal nit ñi tasxiire seen bopp tawaadon yi ñuy def loolu kon kii nuy fàttaliku ni tey di ko waxtaane di waxtaane diggante bi lii lañ doon dund ak mbokkoo ak bëggante ak yéenante ak rafetal seen diggante yàlla na nu leen yàlla fayal ci barke xaadimu rasul noo ngi jéggulu waxtaan yu ni mu tënku ni mu demee xaj na yi ma tënk dafa bari lool tey ci xat-xat yi waaye solo si rek mooy message bi jàll lii bu mu dakk gis nga nee raw doro yaa def bind ay téere di naq di wax nangam nangam nit ñi nañ jël seen dundi maam yi bind ko te teg ko des na ci kanam danga toog fii dégg ku jël sa xisab maam di ko nettali te doo ca man dara ndax nit ñi dañoo gëm xaalis sama karaas waxtaankat yi yëpp ku ci yorul dara bu la nit di jox deux cent mille na kese bi nii la demee doo ko seetantal dalay lay wax rek moo tax kuy wax xam nga tey boo ñëwee toog man bu ma toogee damay wax ngir sëñ Abdou Dia waaye bu ma nee maa ngi wax ngir sëñ Saliou mais de bala am na taalibe bu ne fee bu sëñ Abdou Dia boo xam ne boo noppee nangam maanaam loo duufal du doy ndax bëgg deux cent mille ak cent moo tax dangay toog ci télé gis ñu jël sa xisa maam na ko daj te doo ko mën a wet teel leen a bind te teg kuy sukkandiku dellu ci boo ko defee sos yi ak sof gi ak wax lu amul gi dana jeex man maa ngi seere ci yàlla ne lii ma xamaat ci sëñ Abdou Dia fan yi xaw ma ko woon damaa wax sëñ Saliou na ko yéen lii waxuma la jataayu sëñ ñu ne njabootu sëñ Abdou Dia toog di waxtaan waaye la ma ci gën a arrangé mooy toog ci beneen milieu boo xam ne ak njabootam du fa ne may joxe référence joxe ko ci man loolu moo ma ñor ci mag ñi kon loolu lañ gën a dolli ci gëstu yi gën koo génne gën a dimbale yëf yi ndax mooy dëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullah Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer